Ndeye Sali Diop Dieng mi ngi ci benn waar. nee Amadou Ba mi ngi ci beneen waar. nee keneen ak keneen mi ngi ci beneen waar. booloo mooy doole. nee say boobu. def nañu ko. taxawee ko. pour moom. pour mën a. le 23 janvier. dès 17 heures. ñu ne Benno Bokk Yaakaar. jël na Ndakaaru. teg ko ci loxo le président Macky Sall nee baay mi ngi lay sant bu wér a wér nee li bokk nag bari lool te xoot lool muy nuyu yaayam di ko ziar di nuyu famille bi yëpp loolu la ni woon dina ko ci wax asalaamualeykum wa rahmatullah yaay dëggan ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. yaa dëggan ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay. yu sàkku nekk candidat. teg ci Arona Coumba Ndoffène mii toog. ak gorom. doomam. di xaritam. le ministre Seydou Gueye. ne moom Hadj Mansour dafa bëgg presse bi. lii lii nga xam ne Hadj Mansour mi ngi koy wax. du ma sori. ku mu sori. du ma sori du ma du ndax moom Hadj Mansour employé municipal la woon. booba président Lamine Gueye moo nekk maire. booba le président Lamine Gueye moo nekk maire. Magam Ndiir nekk fi. Magam Ndiir nekk fi. Alassane Ndiir nekk fi. Alassane Ndiir nekk fi. Amadou Assane Ndoye nekk fi. Amadou Assane Ndoye nekk fi. ñuy dem. nee ñuy dem. jamonoy dox. jamonoy dox. ba Lamine Gueye jóge fi. ba Lamine jóge fi. président Senghor jóge fi. président Senghor jóge fi. l'ancien gardien de la constitution. l'ancien gardien de la constitution. woo ku ñuy wax ajaratu aram Dieng. woo ku ñuy wax ajaratu aram Dieng. mooy maamu aram. mooy maamu aram mi. ni ko. ni ko. dama lay yónni ca Mamadou Diop. dama lay yónni ca Mamadou Diop. ministre la. ministre la. ci ministre. te ministre. fal gi gën a rëy ci Sénégal ci la bokk. ministre nag fal gi gën a rëy ci Sénégal ministre ci la bokk. waaye dama bëgg. waaye dama bëgg. lébu yore maire bi. lébu nag yore maire bi. te sama xel. te sama xel. nekkul ci kenn. nekkul ci kenn. ku dul Mamadou Diop. ku dul Mamadou Diop. yow Aram. yow Aram. boo demee wax ko Mamadou Diop. boo demee wax ko Mamadou Diop. bu d' accordé. bu d' accordé. ma nommé ko maire. ma nommé ko maire. waaye ku xam Dakar. waaye nag ku xam Dakaru ñu ni la doomu Bassirou Diagne ngi nii. ñu ni la doomu El Hadj Bassirou Diagne mi ngi nii. mooy jabaru Arona Coumba Ndoffène. mooy soxna Arona Coumba Ndoffène mi toog. Bassirou Diagne. Bassirou Diagne. Marème Diop Makhtar mi ko jur. Marème Diop Makhtar mi jur Bassirou Diagne. Makhtar Diop. Makhtar Diop. jiite na. jiite na. ci zawiye bi ci zawiye bi. sunu maam Cheikh Sida Malick radiyallahu taala anhu. Bassirou Diagne. Bassirou Diagne. keroog ba ñu koy fal sëriñ Ndakaaru. ban koy fal sëriñ Ndakaaru. ministre bu ñuy wax wan moo fi nekkoon. ministre bu nuy wax wan moo fi nekkoon. Talla Dioum moo doon chef de cabinet. Talla Dioum moo doon chef de cabinet. moo ma woo. moo ko woo. ni ma ni ko. bi wàcc na. décision bi wàcc na. Bassirou la ñuy nommé. Bassirou la ñuy nommé. maa ko njëkk wax. maa ko njëkk wax. kon. kooku kooku. bu àndee bu àndee. ak Ablaye Diouf Sarr. ak Ablaye Diouf Sarr. nekk jabaru. nekk soxnas. sama xarit. xaritam. sama soppe. soppeem. sama doom. doomam. Arona Kumando. Arona Kumando Fenn. Ndakaarongo. Ndakaarongo. ñu ni tuuti. ñu ni tuuti. ñu kii kat. ñu ni kii kat. mooy doomu Ablaye Diop. mooy doomu Ablaye Diop. Matar. Matar. Ablaye Diop. Ablaye Diop Matar. Doudou Diop Moussé ma ko jur. Doudou Diop Moussé ma ko jur. Moussé. Moussé. moo doon grand sëriñ de Dakar. moo doon grand sëriñ de Dakar. Bassirou Diagne. Bassirou Diagne. nekk grand sëriñ de Dakar. nekk grand sëriñ de Dakar. loolu Marème Diop Matar rek. moo ko ma saam kii fi ñëw tey nag. ne kii fi ñëw tey nag. du jommi ci Dakar. candidat bi fi ñëw tey nag du jommi mukk ci Dakar. waaye nan seetaat yi. waaye nag nanu dellu si waat nag seetaat xel yi. Ndakaaru nan seetaat xel yi. Ndakaaru nan seetaat xel yi. wajuram. ak baayam. ak ci askanu réew wi. ci askanu réew wi. lanu bokk lanu bokk. muy askan wan. muy askan wan. muy askanu lébu. muy askanu lébu. kii toog. nee gor su baax si toog. wane na. wane na. li mu man li mu man ak li mu xam. ak li mu xam. ca booba. ca booba. déggul ministre. déggul ministre. kon. kon. su la président Macky dellu si waat. bu la son excellence monsieur Macky Sall dellu si waat. def la Abdou Diouf defoon. def la président Abdou Diouf defoon. ni Ndakaaru. ni Ndakaaru. dama leen joxaat seen doom. dama leen di delloowaat seen doom. mu nekk maire de Dakar. mu nekk maire de Dakar. waaye waaye Sénégal. waaye région du Cap Vert. leen seen xel. seen xel. ba ki fal. ba ki ni fal. ñu xam mooy kan ñu xam mooy kan. kii toog. ne kii toog. wallaahi. wallaahi. barke El Hadj Mansour. barke El Hadj Mansour. kenn du ko laaj kenn du ko laajte. gërëm nag ci kanamu le ne moom Hadj suur mi ngi gërëm nag ci kanamu le maire de Dakar bii Arona na Ndoffène mii monsieur le maire maa ngi lay wax monsieur le maire Hadj Mansour nee na bu tam xaritee bu tam xaritee nagu moo fi jiitu nagu Arona Coumba Ndoffène moo fiy jiitu bu tabaski jotee bu tabaski jotee xaram moo fiy moo fiy jiitu te masul ñëw mukk. te masul ñëw mukk. enveloppe boobu. enveloppe boobu. ba cay tegu. ba cay tegu. te du mat njëgu xar. te du mat njëgu xar. ak njëgu nag ak njëgu nag. kii toog. nee kii toog. sama doom. nee nag monsieur le ministre Arona Coumba Ndoffène doomam nga. waaye. waaye. ki xam ne moo la samp nag. ki samp nag. moo man <laughs> Mansour Mbaye damay def du ma ànd yow. waaw moom Hadj Mansour Mbaye nu muy def ba du ànd ak yow. sama njaboot ànd yow. njabootam ànd ak yow. moom. membre du bureau politique du parti socialiste la. membre du bureau politique du parti socialiste la moom. sage du bureau socialiste la. sage du bureau socialiste la. bokk yaakaar. bokk yaakaar. ànd ak président Macky. ànd ak le président Macky Sall. ca sama xarit ba. ca xaritam ba. sama soppe ba soppeem ba. Ousmane Tanor Ousmane Tanor. ñu ànd ak président Macky. ñu ànd ak président Macky. président Macky am fu mu ma teg. président Macky am fu mu teg Hadj Mansour. def ma baay def ko baay. def ma xarit def ko xarit. jabaram ja soxnaam. def ma baay def ko baay. def ma xarit def ko xarit. ñu tànn Abdoulaye Diouf Sarr. ñu tànn Abdoulaye Diouf Sarr. man moom Hadj Mansour. ak sama njaboot ak njabootam. ak loo xam ak loo xam. ak loo xamul ak loo xamul. yow la ñu àndal am na wax am na nag wax yoo xam ni. jotagul jotagul. waaye balaa la 23. waaye balaa la 23 nag. daa xam ne Mansour Mbaye yow la àndal. nga xam ne nag sa wajur bii toog de El Hadj Mansour Mbaye yow la àndal. yow toog nag. ne yow mi toog nag. Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr. li gën a fort. li gën a fort. te yàlla gën ko bëgg. sunu borom taara ko taalaa gën ko bëgg. mooy yëg mooy yëg. nee nag doomam ji toog nag dafa yëg baayam bi di El Hadj Mansour Mbaye bu nu dajee bu nu dajee. mooy wàcc mooy wàcc. ci otoom ci otoom. su jëf jotee. bu jëf jotee nag. enveloppe am enveloppe am. daf koy yónnee ci kër gi. daf koy yónnee ci kër gi. mu jaar ci saaliwu. mu jaar ca saaliwu. mi nga xam ne sama dooma. mi nga xam ne nii doomam la. wala. wala mu yónnee waat ko keneen. wala mu yónnee waat ko keneen. ni ko ni ko. sama papa. neel sama sama nijaay sama nijaay. lii lii nag maa ko ko jox. budul loolu. nee budul loolu nag. su ma la xamul woon sax. nee moom Hadj suur bu la xamul woon. nga ànd ak yow rek nga ànd ak saydu Gueye. te président Macky sax tànnu la. te président Macky sax tànnu la. may àndal. nee kon kan lay àndal. kii sama doomam. nee kii doomam la. bu ñuy wax Ndakaaru. bu ñuy wax Ndakaaru. Ndakaaru gi. nee kii toog nag di saydu Gueye mooy Ndakaaru. waane. waaye nag. na sa xel na sax xel dal. ndax. ndax. réew mi wax Sénégal. ñuy wax Sénégal. président Macky li mu fi def. président Macky li mu fi def. man de fekk naa 45. moom Hadj Mansour nee na fekk na 45. fekk naa 51. fekk na 51. fekk na 52. fekk na 52. fekk na yu bëree bëri. fekk na yu bëree bëri. président Senghor. président Senghor. sama photo ngeen ma ànd ak moom. nee ma nga ne mu ànd ak président Senghor. Abdou Diouf. président Abdou Diouf. xam naa ko lool. ne xam na lool président Abdou Diouf. muy sama mbokk. ne muy mbokkam. di sama xarit. di xaritam. président Wade. président Wade. defal ma teraanga yu rëy. defal ko teraanga bu ne. waaye kii toog. waaye kii toog nag. di président Macky. di président Macky. sama doomam. nee na nag kooku nag doomam la. booba. booba. déggagul président. déggagul président. ndoom googa. doom googa nag. ak waajur gam ma tegoon. ak waajur gam ko tegoon. tey fa la ma tey nag président Macky foofu la gën a teg bàyyam bi toog di El Hadj Mansour Mbaye. Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr. danaa ànd ak yow. dana ànd ak yow. ngir sa jukko. ngir sa jikko. ak sa melokaan. ak sa melokaan. ak tànn bi la président tànn. ak tànn bi la président tànn. waaye danaa ànd ak yow. dina ànd yow nag. pour ka ca Barzak. pour ka ca Barzak. di sa nijaay. di sa nijaay. El Hadj Mass Mbengue. El Hadj Mass Mbengue. xam ne dund ba xam ne dund ba ba génn àddina paasu umra. paasu umra. su su dee dem Màkk. wala demuma. wala demuma. ma ko mu jox ko ko. ñu ne Ablaye Diouf Sarr. ñu ne Ablaye tànn na ko. Màkk tànn na ko. ànd na aaroon na kumandoo fen. ànd ak Seydou Gueye wut wut Ndakaaru. wut Ndakaaru. Mansour Mbaye àndul ak moom Mansour Mbaye àndul ak moom. sama ko nee na loolu ngorom may ko ko. est que. li lay wax daal. nee lim lay wax daal. Amadou Ba ñëw na ne monsieur le ministre Amadou Ba ñëw na fi démb. sama doomam nee na doomam la. ndax yaayam ndax yaayam. ak baayam ak baayam. dama leen xam lool. daf leen xam lool. waaye lim ma wax. waaye lim ko wax. ci kanamu Arouna. ci kanamu Arouna. dénk naa la. dénk naa la. le ministre. le ministre. ki xam ni ki xam ni. moom la Macky tànn. moom la président Macky Sall tànn. bokk yaakaar moom lañ tànn. bokk yaakaar moom lañ tànn. muy Abdoulaye Diouf Sarr muy Abdoulaye Diouf Sarr gor su baax si tool fi mu ko teg loolu. bu ko teg loolu ko nag sa yar sa sa teggin sa teggin. sa sa juddu. sa juddu. may na la may na la. nga nga nekk maire nga nekk nag maire de Dakar. may wax ak sénégalais yi. ne Hadj Mansour mi ngi dellu si di waxaat ak sénégalais yi. ak région du jaawale. kii kii. fii mu toog fi mu toog. mooy kii fi mu toog nag mooy Mamadou Assane Ndoye. maire mooy Mbagam. mooy Magam. Ndiir Ndiir. maire maire. mooy Ousmane Diop. mooy Ousmane Diop. mooy kon kii. li nu war def. li nu war def ñun. ñun ñëpp ñun ñëpp. ak Sénégal yëpp ak Sénégal yëpp. surtout région de Cap-Vert. surtout région de cap la présenté. moom la présenté. ñu fal ko ñu ko. fal ko xam ni fal ko xam ni. Sénégal yëpp Sénégal yëpp. daanu xam ni daanu xam ni. tànn nañu seen doom tànn nañu seen doom. Ndakaaru xam ni tànn nañu seen doom. Ndakaaru xam ni tànn nañu seen doom. Sénégal xam ni tànn nañu seen doom Sénégal xam ni nag tànn nañu seen doom. kon. nee kon nag. maa ngi wéeru ci gi dul daanu mukk waaw sa baay nag El Hadj Mansour nee na mi ngi weeru nag ci guy gi dul daanu. mooy kooku nag mooy sunu borom tabaraka wa taala. di la ñaanal di la ñaanal. lu nee moom lu lay ñaanal. mooy le 23. mooy le 23. ñun ñëpp ñun ñëpp. ñu ni Ablaye Diouf Sarr nag gagné na. di la ñaanal. di la ñaanal. yàlla may la na la yàlla may gudd fan. liggéey bi sa maam yi liggéeyoon. liggéey bi nga xam ne ni sa maam ñoo ko liggéeyoon. di Magam Ndiir. di Magam Ndiir. di Alassane Ndiir. di Alassane Ndiir. di Amadou Assane Ndoye. di Amadou Assane Ndoye. bëgg nu nu bëggoon Ndakaaru. am fu nu bëgg yóbbu Ndakaaru. am fu yàlla ko fa na nga ko àggale nag yóbbu fa Ndakaaru. ndax yow. ndax yow nag. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. candidat bari na. candidat yi bari na. waaye candidat bu mel ne yow. candidat bu mel ni yow. wallaahi benn benn parti amul lool fii laa yem. nee Hadj Mansour nee na fi lay yem. di gërëm Seydou. nee mi ngi dellu si di gërëm doomam Seydou Gueye. di ko ñaanal yàlla. di ko ñaanal yàlla. yàlla may gudd fan. yàlla na la yàlla may gudd fan. yàlla la yàlla may wér. waaye monsieur le ministre. waaye monsieur le ministre. monsieur le maire. monsieur le maire. boo gisee as gor kuy jàpp te du bàyyi. boo gisee nag gor kuy jàpp te du bàyyi. te du fàtte. te du fàtte. xàmmee ñëpp. xàmmee ñëpp. defal teraanga Sénégal yëpp. defal teraanga nag Sénégal yëpp. surtout ci région du cap ci région du Cap-Vert. surtout ci usine biscuiterie. mooy Arona mi ngi nii toog Arona Coumba Ndoffène. kon nag ma lay wax daal. nee kon monsieur le ministre li mu lay wax. ñun ñëpp daal. ñun ñëpp daal. nan wéeru ci nag ci guy gudd daanu. ñaan ñaan. Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr. yàlla mi xam yàlla mi nga xam ni. dara tëwu ko dara ko. yal ko yàlla jox yal na ko yàlla jox. maire de Dakar maire de Dakar. te mu bañ am coow. te mu bañ am coow. bañ a am violence. bañ a am violence. ñëpp ànd moom ñëpp ànd ak moom. boo gisee président Macky. ne boo gisee nag la président Macky Sall. ni ko Mansour Mbaye nee. na nga ko wax ni ko Hadj Mansour nee. fa mu nekkoon démb. fa mu nekkoon démb. fa la nekk. nee na njabootam. fu mu leen joxoñ fu mu leen joxoñ fa la nu nekk fa la nekk. kon nag kon nag. ñun nekkunu fenn. fenn. lu dul ànd ak président Macky. lu dul ànd ak président Macky. ak ànd ak yow. ak ànd ak yow. est-ce que Cissé mii nag. Cissé mii nag. sama doomam doomam la. baayam baayam. sama xaritam xaritam la. te booba. te booba. xamul woon mukk ni. xamul woon mukk ni. dana nekk sa au conseil. dana nekk au conseil. ci kër gii la dëkk ci kër gii la dëkk. kon nag. kon nag. ñu ñaan. ci daraje rasulullah ci daraje rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. sa maam Cheikh Sidi Alhaji Malick. nee ci sa barke maam Cheikh Sidi Alhaji Malick. ak barke Xaadim Rasul. ak barke sa maam Xaadim Rasul. ak barke kilifa diine yëpp. ak barke kilifa diine yëpp. li gën yow. li gën ci yow. yàllaa ko xam yàllaa ko xam. yàlla na ko yàlla def na la ko yàlla defal. mooy. mooy. yàlla mi xam yàlla mi nga xam ni. dara tëwu ko dara ko. yàlla na la def maire. yàlla la yàlla def maire. de Dakar da Dakar. ba li xam ni. ba li nga xam ni nii. Alassane Ndiir bëggoon na ko. bëggoon na ko. Magan bëggoon ko. Magan bëggoon ko. Amadou Assane Ndoye bëggoon ko. Amadou Assane bëggoon ko. yëpp loolu lépp. nga réaliser ko. lu jàng nee nan jàng Fatiha nag. teg falaxeeg naas ak salaatul faatihi ak salaatul faatihi. ñun xamuñu gémmiñ bu am barke. ne xamuñu nag mbooloo mi gémmiñ bu ci yàlla def barke. ñu ñaan ñu ñaan. Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr. yàlla def. yal na ko yàlla def. maire de Dakar maire Dakar. te coow bañaam te coow bañaam. violence bañaam violence ba ñun ñëpp ba dem ca maire de Dakar ñu dem ca maire de Dakar. élire ko bu bis baa bu bis baa. ñun ñëpp ñu ñëpp ñu àndandoo. président Macky kontaan président Macky kontaan. ñun ñëpp ñëpp. ñu nekk région du Cap ñu nekk région du Cap Vert. ñu am mbégte ak contentement ak contentement. ngir ngir. fii fii. ndakaaru gi ndakaaru gi ku fi xaj tey. ku fi xaj tey. say maam say maam. ñoo leen xajal ñoo leen xajal. kon nga nekk maire de Dakar kon nga nekk maire de Dakar. avancement la ci Dakar avancement la ci Dakar. ñu jàng loolu. bismillah. ba ba baam tuwaatal ñaan. Fatiha. dafa ne nañ jàng Fatiha. ak falaxeeg naasi. ak salaatu ak per salaatu ñaan yàlla ñu ñaan yàlla. yàlla yàlla ñoo ngi nii di toroxlu yàlla ñun daal sa jaam yi ñoo ngi toroxlu ñun ñëpp ñun ñëpp yaakaaruñu kenn yaakaaruñu kenn ku dul yow ku dul yow di ñaan di ñaan Ablaye Diouf Sarr Ablaye Diouf saar yàlla na nekk maire de Dakar yàlla na nekk maire de Dakar Arona Coumba Ndoffène Arona Coumba Ndoffène yàlla na nekk maire yàlla nekk maire fii ñu toog fii ñu toog yàlla yàlla yow rek yaay buur yow rek yaay buur. ñoo ngi la koy ñaan ñoo ngi la koy ñaan amin na ñëpp ne amin te tàll seen la yàlla yàlla bàyyi la fi ay at yu dul jeex. jërëjëf Moussa Fatou amin allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatih lima ughliqa walxatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi aqadar mutawas subhana rabbika rabbi izzati ma yushrikun والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام bon pour tout monde. waaw. Ah. bon pour tout monde. waaw ok bisimilah. Ah, waaw waa Ndakaaru Njaay waa Sénégal dañu am mbégte dalal gan gu màgg goo xam ne yaakaaru Sénégal yaakaaru Ndakaaru Njaay ak yaakaaru Biscuiterie yi mi ngi ci boppam président investir ko muy suñu candidat ville de Dakar suñu déggee candidat ville de Dakar nag wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci communes yi ñoo ko war a gën a mun a jàppale ñoo ndax ñun ñoo ko gën a war a mun a soxla lépp lu commune di def ak nu mu munta toll ville de Dakar su ñëwee ci yaakaar naa ne commune boobu day gën a jëm kanam monsieur Abdoulaye Diouf Sarr au nom de toute la commune de Biscuiterie tey jii am nañu mbégte boo xam ne amul fenn foo xam ne yem na fa li ñu mun nag mooy du ñu ménager benn effort pour nga falu ville de Dakar ndax gisuma ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy xëccoo ku am say compétence ci am koy toog su ma toogoon fii di lim li nga xam ne ay réalisation yoo def du ma fi jóge ci domaine bi nga xam ne ndomba tànk la président dénk la ko bon gisuma yow koo yemel ci statut ci expérience ci réalisation ci bilan ba ñu mun koo taxaw sa kanam di tànn keneen ville de Dakar ku dul yow vous êtes notre futur maire de la ville de Dakar Biscuiterie avec vous monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. waaw maa ngi euh, vraiment rafetlu bu baax tey suñu ñëw fii si. Biscuiterie yi muy commune boo xamante ne commune bu am solo la si Dakar mais li ñu gis dal na suñu xel tey boo ñëwee Biscuiterie da nga xam ne le 23 janvier 2022 maire Biscuiterie yi Arouna Coumba Ndoffène lay tudd ma ko siy félicité ça veut dire que liggéey na véritablement te jubboo na ak population yi biñ ñëwee jaar nañ marché ngelaw jaar ngelaw 2 jaar marché basam mais li ñu seetlu mooy que ne population yi ak ñi liggéey si marché yi dañ nañu li nekk si seen programme di di jëm si marché yi dafa méngoo ak li xaar mooy marché yu set marché yoo xamante ne lépp lu jëm si santé mën nañ ko fi marché yoo xam ne dafa am hygiène ak sécurité marché yoo xamante ne ñi fay liggéey bu ñu leen joxee ay financement du ñu leen ray ak ay taux d'intérêt te loolu yëpp ñun mi ngi suñu programme bon ñu koy rafetlu ñu ñëw fii si donc kër El Hadj mu dalal ñu dalal bu rafet mais surtout jàppale ñu nañu vraiment yéen la ñuy jàppale yéen suñuy doom mais jàppale ñu rek parce que loolu mais dafa daf ñu jàppale parce que dafa xam Sénégal daf ñu jàppale parce que dafa xam lan mooy municipalité parce que moom ancien agent municipal ma profité vraiment di ko gërëm di ko remercier li mu def rafet na lool mais may euh, aussi lancer un appel à partir d'ici de chez agement Mansour parce que moom xam na luy municipalité mais lancer un appel agents municipaux yëpp di leen wax ne jot na ñu am maire bu leen di toppatoo jot na ñu am maire bu xam lan mooy agent municipaux municipaux jot na ñu am maire boo xam ne day moderniser effectivement l' administration municipale jot na maire ñu maire boo xam ne daf leen di jox gëdd pour que véritablement ñu ñoom ñu nekk nit ñu fier pour être agent de la ville maire boobu yaakaar naa ne mën nañ ko gis si man parce que xam naa bu baax seen tawat liggéey naa ak ñoom nekk naa ci cabinet Mamadou Diop liggéey ak ñoom yore naa maison des élus xam naa lan mooy municipalité te xam naa ni une administration moderne avec des agents motivés taxaw valorisés loolu mooy tax ville bi jëm kanam te incha allah bu ñu ma jàppalee ñoom les agents municipaux ba ma nekk à la tête de la mairie dañ xam ne effectivement maire wu Benno Bokk Yaakaar bi ñuy fal le 23 janvier 2022 wuute na ak maire yi ñu si daan gis merci. waaw monsieur le ministre lan nga xalaat ci euh, signature pacte de non violence bi nga xam ne moom la euh, ci dis bi wax. damay euh, ñëw. fii si kër Hadj Mansour Mbaye koo xamante kuy wax jàmm si moom nga koy fekk lancer un appel pour wax que bépp acteur politique bu bëgg municipalité war na taxaw ne waru ko am si cadre boo xamante ne du cadre jàmm ñun si jàmm la ñu yar si jàmm la ñu xam lépp lu ñuy wuti bu si jàmm nawul soxlawuñu ko bon nag ñu ngi lancer un appel il faut que principe boobu ñëpp respecté ko si 601 collectivités territoriales yi en tout cas Abdoulaye Diouf Sarr fii si Dakar ak ñi mu àndal si 19 communes yi ñoom ñëpp li ñuy def danañ ko def ak dal danañ ko def ak yar danañ ko def ak jàmm parce que si loolu rek la ñu mën a defee effectivement réew mu jëm kanam am na ñoo xamante ne nag leen arrangé mooy mu jaxasoo bu jaxasoo ñu mën si gis seen bopp mais ñun xamuñu loolu ñun jàmm la ñu woote te ñu ngi lancé effectivement population Sénégal yëpp ñu topp effectivement popula ñu topp homme politique yoo xamante ne homme politique jàmm lañ bàyyi homme politique yoo xamante ne fitna la ñu xam merci